sànni nit karta wala fal nit bu mu tax sa diggante ak sa dëkkandoo yàqu sànni nit karta wala tànn nit bu mu tax sa diggante ak sa mbokk yàqu lii dara jaru ko sànni karta boo ko seeloo fi mu nii ñun si Gambie ni moo dem fi mu nii comme comme ni ko madame Ba ci wax ak Thiamane waxee am na kanju loo xam ne ak député yoo xam ni tànn ma ma gën la la rek am na ñoo xam ne bi ba tey gisuñu leen loolu nag bu mu tax ñu yàqante suñu mbokk bu mu tax ñu yàqante suñu dëkkandoor gi kon nañ bàyyi suñu xel sànni carte kenn ku te bés sànni carte boo changé sa carte demal toog ci sa kër nga dégg sol si su neexee bala jant bi soo da nga xam lan moo xew ci sa kii ki ki nga yu ne denc yoo xam